maa mere mere boo xam ni joxatuma ma lekk joxatuma ma naan. bi ma duggee message ma gis muy envoyé benn Binta ay message ah loolu kay doy na waar man man na ma trop. message yaa ngi nii dama ko jël capturé ko. ndaw si daf ma sonal toppee bu sori ma am ci moom yërmande ak cofeel goo xam ne. xaw ma ko man dañ ma laa buur. sax nan lay xoolee jëkkëru jàmbur. doy di mu koy envoyé ay message à n'importe quel doy waar rek doy waar doy. ko naa ko. gisante ni bés Soroxaya Ouest Foire. waaw bu ma gisante loo wax ak moom yéen ñaar dara ump ma. li ma jaaxal loo wax kii ba ngeen dajee ñaar ak la nga ko wax ba mu ñëw pour lan loo koy doyee lu xew. xamoo déedéet. <laughs> maa ko woo nekk ko man sa petite sœur laa dama koy dégg te mënuma koo gis ma def le tout ba dajeek moom. waa soxna Anta bi nga dajeek moom lan la la wax ba tax mu yëngal sa xol bi ci kii lu bari kooku bàyyiwul dara parce que li ma ko gëm loola dama ne ko rakkam laa. Mhm. moo tax mu mën ma raconter ñoom ñaar fi ñu jaar lépp. wax na ma ko. kooku fan lañ jaarul non kooku fan lañ jaarul. moom la koy dof la leer non takki lan man dama takk sama ceinture bay takk leneen. sa ceinture fu ma ko fu ma ko takkee jëm. man sama tubaab yi waaye yow ma ne kooku wax nga waxi lan kooku wax ñu ngi waaj a dem tribunal parce que dañuy divorcer ma ban papier nga ko war nag. nee na war na ko lu mu doon. gel bi nee na ma yow yaa ni ñu ngi waaj a divorcer tu vois. non loolu yëpp mosut a nga ni ko man bëggoo ma. mukk ci àddi sëy bi. tas na ba pare yow di nga nekk sama doomu nijaay di sama deret ma non waxu xale yi ngay fanaan man ma fanaan ci saal bi. suñu nekk sax déjà tëdd. loolu da koo créé loolu da koo créé loolu amul. wan na ma ay photo yoo xamante ni yéen ñaar yéen nañu amul ñun commerçant yi pour lancer benn produit. ay photo yoo xam ne da ngeen doon fóonante bañ na ko ba daf ma ko envoyé. de dama ko doon de mu su ma ko mu ku dama ko doon accolade. accolade mënul toll noonu xaaral ma xam waaye yow li mu def koo xam ne sa xarit kase la waaye kii dama ko doon accolade xanaa fi yow ni ko gëj a gisante la ma dikk rek loolu rek la du leneen ma ne xoolal kii daal wayut li ñu lay wax ni ay waxu dof man mënu maa gëm li ngay wax ni ay waxu dof dama ko doon akolaat mi mais yegguñ ma jaar wax na ma ko lépp loo ko defal na ma ko te sa kër cent franc woo ko fa lu lépp lu am ci kër gi man rasulullah waaye looy wax ni yow defalu ma ko dara nag laa ko defalut li mu la wax yëpp ay wax ci la xam nga jigéen ñi mën nañ dem jënd seen yëf seen i façon defanteeg yow non loolu amul loolu du loo xam ne moom ko a nangu ñi fan teg ma fi di ma wax lu la neex non fii mooy place bi xam ndax man ci kër ga mais jaaxle tax mu ñëw fii man ci kër ga mu tere mais soo doon wax ak man ci kër ga mu tere mais a régler suñu lii mën a àndee sa gen ba sali nga ni da ngeen di dem weekend yéen ñaar te man mii sa jabaar fu ma la wax nañ dem tëngéej sax doo fa dem waaye kii ñun juguma ànd ak moom fu ma la wax ne la dem eh, déglu ma ma la wax ne la nañ dem nga ni mënoo dem parce que liggéey bi dafa bari liggéey jàmm nga yor chaque jour la nga may wax non. mais nan nga mën a jëlee jàmbur nga yóbbu ko ba Saly ba moom mu waxal ma ko boppam pour lan. Saly dama fa dajeeg ñun dañ demoon Saly dañu amoon benn produit bu bees demoon séminaire pour lancer produit bi ci lan lañ nekkoon ñu daje daje de moom booleeg moom foofu. ànduma ak moom ba ànduma yëpp ci daje la. dama ko accolade fóonu ma ko musuma ko fóon. accolade accolade de la ah, ah. dama ko accolade waaye musuma ko fóon am. waaw ba tey musul am musta am. loolu mën naa la ko baal amul problème boobu damay bàyyi mu sedd. waaw ba tey mais musta am. mais daf ma woon benn photo. Mhm. nga dem kër yaayam seeti yaayam. man mii yow loolu amul. déglu ma. nga may papaam naan sàngara ma déglu maa lay déglu. nga may papaam jasneer wan na ma lépp. dama demoon dëj ca koñ ba. Mhm. fi may ñibbee dugg sama oto fi may taalee di départ pour dem seen ko muy génn benn kër. ma ne ko yow looy def fii mu ne ma fii laa dëkk. kaay nuyu sama papa ak sama yaay mun koo gàntal mu dugg nuyoo mun ma dem ci loxoy nen ma jël jas ne li ñëw ci oto bi jëm jox leen ko nuyoo leen ko lii dem fa yóbbu. xam nit moom ci loo xam ngeen day rafet na rek ngeen nuyoo ñoom jël jox leen du dara ci loo xam te ne dama sànni woon sama ginnaaw benn 4 mètres du dara. 4 mètres kese 4 mètres boobu mënoon ko sol ci yow lay si déedéet da nga yëpp kiiw ci loolu rek mu ci dugaloon du leneen. Hmm. waaw surtout nag dëj bee taxoon ma jàll. ziar ci leneen ak leneen loo ma xamal lépp dina leer. incha allah soxna si lan nga garder li nga garder sa xol bii soo ko génnewul xam nga jub boobu du mën a neex. bari na soxna si bari na torop li nekk sama xol li may dund sama kër man maa ko xam ak liñ ma wan ci moom mii man maa ko xam. waaw lu la war a wan ci ci man lan moo desati encore. lan moo des. non non loolu amul ci loo xam ne. nga baal ma mais xalaatoo yi da nga def erreur di nga cherché ba mu bëri bëri ni nga cherché noonu dafa ëpp. mais c'est normal parce que sama jëkkër la te dama koo bëgg. te damaa toog muñ. lu ma bëgg bëgg naa ko ba tey moom am na ñetti doom. Mhm. xam nga loolu du dëgg mhm. du ma d'accord nag benn xale bu nekk ci mbedd bi nangu sama jëkkër du ma ko def. Mhm. looloo tax ñu woo leen dalal leen fii pour solution ngeen jubboo boo waxee li nga xam ne mu ngi sa xol yépp dinañ mën a trouver solution ngeen àndaat si nu mu nekkee woon. waaw loolu mooy dëgg ah, nag waaw loolu mooy dëgg nag man de loolu leen bi gën a bëgg ndax jaaxle naa lool lool lool lool. ah waaye yow dafa mel ni li nga def tamit dafa ëpp de. non loolu def ma ko loolu def ma ko dañ ma ko kii rek mais def ma ko kooku dafay def ay yoo xamante ne ay yëf di créer ay yëf daal di boole. ay mais loolu def ma ko surtout man ci ay waxu ay takk man fu ma takk jëm man li ma non non loolu amul moom sama mbokk la sama doom nijaay la. sama dalita pour takk kon. takk ma ko mukk aram ni kuy naan sàngara. Hmm. mukk ci àddina. ba pare yow sama jànq lan nga war a mën a sékk ak moom. ma. Mhm. téléphone moo sonné dafa demoon bitig ba mhm. ma dugg ci néegam di jël appel bi pour ne ko dafa génn ma gis bébé Youssou. bébé Youssou waaw man yow laa doon boo jotuma la ma tax ma woo ko ah li mu ci xanaa kon suñu bébé. mu téye moo tax ma def loolu jëlee numéro. non non non non su ah, moom lan la ciy defee bébé Youssou. déglu ma expliqué la. ah lan ngeen sekk yéen ñaar soo dégloo rek ma wax la boo bëggee lu leer dama jël numéro pour su ma la wooyee jotuma la ma woo ko. d'ailleurs sax dama la woo à deux reprises sa jotuma la ma woo ko moom. nga laaj ma man numéro ma jox la ko. du dara dama xam ne benn la rek. amoo droit sama jànk ñëw ci kër gi ngay jël numéro. kenn mais déglu ma expliqué la. pour boo ma bëggee jot man boo ma bëggee jot xam nga fi may jotee. xam nga ñii jànguñu li tax mu bind dèjà yaa ay bébé Youssou parce que suñu bébé lay téye. suñu bébé lay téye moo tax mu bind ay na nga bébé tax. kooku jarul nga ci mer wala di ci kii xam nga lan la man sax non non non non. defal naa chéri dama bëgg nga déglu ma. maa ngi lay déglu ba man maa ngi bëgg sonn ah. maa ngi lay déglu ba tey. man parce que nag maa jëlee sama kër indi ma ba fii. pour ngir ñu mën a bañ a divorcé yi ngay def man taxuma fee toog chéri kaay ma wax la benn affaire xam naa ni man dama gis ne yow dafa mel ni danga bëgg a divorcé. da nga ma woo pour ma ñëw ñu leeral leen dafay dëgg rek non non maa ngi lay wuy mais am na loo xam ne man je vois que yaa ngi am vraiment tu as les nerfs tendus xaw a kii non non reviens un peu sur terre ñu waxtaan ma loolu tax sax ma gën a ñëw fii man je vois que ni li tubaab di waxee dëgg dafa mel ni que vraiment qui veut tuer son chien l'accuse de rage dafa mel ni divorce bi nga jëm nii pour indi ma ci du solution man ak yow nañ xool lu ñu waxtaanee jànq moom c'est la dernière des choses moom. ñoom jànguñu demuñu école demuñu fenn da koo bind noo xam ni day téye suñu bopp li tax ma jël ko ngir su ma jotee jot la ci moom chéri arrêtel ci loolu diwaatal un peu li li ma li ma bëgg a dugal nii da tey mësta du lu ma xalaat sax du loo xam ne sama xel sax da ciy dem jamais yow tamit mun ma jël sa jànq di ànd ak moom ci xalaat bu ma ko si àddina du yëfu nit sax bu xalaat sax yooyu loolu mooy xalaat di la wàcce wala di la ridiculiser kese la yem lool ñu laa seq ak moom xoolal attends li gën a grave ñàkk jàng tax xamuñu mu bind ay bébé yuusu loolu rek du leneen bul sax xoolee foofu. yow da nga foog ne xanaa ma wala dof nga ma teg teg ma sa kër daal def ma dof di dem ci bi di lijjanti say sa appel manqué. woon naa la ak deux reprises ci laa woo jànq yi loolu tax ma woo ko du leen taxul ma woo ko. su ma ñëwee damay gis sa appel manqué. jànk bi kay du jànk nekkatul jànk sa gell kay ci biir kër gi. yàlla tere loolu waxi lan loolu jeex man nag. bàyyi sa yooyu wax dof yi ngay xalaat. wax yi mooy yan sax ay affaire am nag fan yi ci kër gi. waaye wax yi yow non attends est-ce que fi mu toll nii yow. yow dafa mel koo man wala la li wala waxi mais attends mais réfléchir bi yéen nga wax nii yow dafa mel ni a takkali koo man ci yenn yi non xalaatal baax li nga def. mais extrait yi ma fekk sa sa armoire la. extrait wu lan wér di gis nag bokk ci sax nag man du ma yem ci ay wax kase am wax très baañu lañ ci def bébé Youssou jàlloo lañ ci def. Youssou Diallo mais ki sama turandoo sa turandoo. waaw bu nekkee sa turandoo yow. sama xarit ko jur tuddee ma ko sama xarit bi la tudd. mu mm. tuddee ko man. non. ah si noonu demee dafa mel ni nga amoon jabax doon ma ko nëbb. wala kii yaayam yàggoo leen. ñaar parce que bébé bi 4 la loolu amut. kii sama turandoo sa turandoo mukk kii sama turandoo la. sa xar bi tudd sama xar bi Youssou Diallo Youssou tudd. waaw tuddee ko. bébé bi tudd Youssou Diallo. waaw hmm. nii nii la demee lii mooy mbir mi mu musu loolu yëpp amut. Hmm. déedéet mukk waaye yow loolu wuti sama armoire. wuy ma wuy ma wuy ma andiwaatal kayit bi indi kayit bi ba tey. mais nag yow ku ma yab ndax. mosuma laa yab chérie. tey lay njëkk tey lay mujj bu dootoo ma déranger. te xoolal xam nga lan mooy xam nga lan laay def. xam nga lan la dama déglu léegi xoolal. wuy ma bul sax dugg ci façon yi laay def. dégg wax la. amatuma lu ma non toogal wuy ma non kay xoolal wuy ma. maa la ko jaay non xoolal kay toogal ñu mën a expliqué. wax ci wàllu toogal toogal bi. dégg nga expliqué nag. reviens encore dara tuuti ma expliqué la ma waxtaan. sëñ bi may ñu tuuti ñu wax soxna Anta ñoo ngi jéggalu comme fu mu toll nii xam naa ni seen yaram tàng na sa xol métti na dañ leen di bàyyi ngeen dem toog kër ga ngeen toog tuuti feex dal après ñu convoqué leen fii di si deux à trois jours fekk ngeen feex bu baax ñu mën a waxtaanaat mais ñu ngi lay jox conseil soo demee na nga continuer di ko jox lekk di ko jox naan comme ni nga doon def avant juste rek pour le temps que ngeen reposer bu baax reposer seen bopp reposer seen xol après ngeen ñëw ñu continuer waxtaan bi ñu ngi leen di jox dig daje. si seen beneen euh, rendez-vous incha allah. la mu miin su ko gisul dafay yaa ne sama xol.